dañ ñu mu waxee xalaatam la wax waaye keneen ku ñëw tamit ak xalaatam euh, nañu jël ki na ci ligne bi euh, salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si maa ngi lay ziar bu baax. waaye delloo ziar bu wér sëriñ bi. jot la fi émission bu baax. merci beaucoup. dina ñaal jàmm. yal nañu ko bokk. di ko ñaar réew mi di ko ñaareel jiitu réew mi bés bi joxe fay Dakar fay. ah amiin waay. waaw soxna si. Mm-hmm. ndax mos ngaa gis. Mm-hmm. benn jafe-jafe xew ci Sénégal laax de fu mhm. bokk si booru Ousmane Sonko mhm. Ousmane Sonko nekk en activité ba ñaawlu ko ndax mos nga ko dégg mhm. damay laaj di laajaale ñi déglu ñëpp nag ngeen defiyee képp ku am dégg nga wax ma ko Ousmane Sonko mu natt musa dal nit sëñ bi li daal taxaw Dakar ñu lakk seen seen siège am lu fa génn nag xibaar bu garaaw nag muy koltof mala tof menacé waat réew yëpp Ousmane ma ñëpp lañ jëmale. assurance yi. Mhm, waxal maa ngi dégg nga mu wax si. Mhm. da koo baraamu oyofal ko soxna si. Mhm. Sénégal bu ñu àggee ba ministre l'intérieur bi ñu am nga xam moo fi nekk général pegan xibaar yi force si réew mi lépp jëm si réew mi dem na ba léegi bu bu bu nit jëndee jaasi nar ko jëme si réew mi Ousmane Sonko moo ko yëg ba di ko yëgal kon nekkuñu aar nekkuñu si état loolu na na Sénégalais yi jàng Ousmane Sonko moo xam ne bu ko kenn sànni bu dee day fen sax bu ko kenn sànni na ñuy taxaw di taxaw di ko déglu di di ko di ko analyse hmm. Ousmane Sonko moo fi taxaw li ma la wax démb nga baax na du def du tembi nag hmm. muy kooru kooru Moustapha Ba bi ñuy xool hmm. moom nee na am na sañ-sañ woo ministre woo ministre de la justice mu woo procureur sant ko liggéey mu def nee na loolu ku leen ni état Sénégal mënu ko rek day fen noonu la ko mooy état bi kon transparence bi ne wax amul su ma wax naa la ko fii démb Ousmane Sonko dëggal na ko tey bàyyi jàmbur yi mu tudd lu ko gën a ñaaw dafa am Barthélémy Dias bàyyi Barthélémy Dias li Jean-Paul Dias dama jot ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne ko moo gën a réew xoolal wax ju ñaaw jooju sa boo duggee fii di tudd nday Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko a ko Ousmane Sonko mooy kan bay tudd ay bàyyi nit moom kenn tudd bàyyi ba kenn tudd ay ndayam man soxna si assumé de man yoxoon ak dig ñëpp laa yemale man yàlla yaakaar ay costauds yi man lijjanti ma ko barkaar bi yàlla laay topp bañ koo def waaye laa su ko def ma assumé ko lu dul ay costauds Sénégal yi Ousmane Sonko ko may mu mën a tudd bàyyi jàmmur nit ñi day tudd bàyyam tudd ndeyam buñ fontoo nit ñi rek réew mi dañ ko xam Barthélémy Dias ma wax la si leen fee yi am ndar analyser leen ko takku nit ñi gis ko mhm. fekku ni kenn place am dóor ko jaas yi dé amul de danoo daw dugg fa lu ñu def ba doo dugg fa loolu ñu duñ ko wax ko cortège cortège buy dem ngay taxaw dina leen xaxar lu ne nga leen koy wax lan la leen wax lu leen metti ba leen topp ñu daw di dugg si biir place lan lan wax ak lan lan def na ko nit ñi taxaw seetlu ko du tax nag nga ne nit war nga koo fekk si war nga koo topp ak loolu du yoon du tax sax nit mu dóor ko jaas loolu rafetut loolu nit loo yéenewul sa bopp yéene woo ko say waa yéene woo ko kenn waroo ko yéene kenn ñàkk Sonko wala nga ànd ñaa ngi ànd ak waa Pastef du tax man mm-hmm. may yéene nit di dóor Pastef yee jaas yi wa ilaa du ko dóor wet loolu jaaduwut kenn waru koo def mais su boobaa na ko ñëpp nungu si ñëpp nag mm-hmm. muy góoram mooy ni ñi wax Ousmane Sonko am na ku ma dégg mu wax bay tudd affaire ay comme ni muy ni muy wootee ay nii mm-hmm. bu dee ngaa kay ngaa xëy la Ousmane Sonko di di nii di leen sotti pepp ngir nu dee mais nant yëpp nag kenn xalaatu taxaw kër bu kër Barthélémy Dias de doofu nu de mhm. xam nañ Barthélémy Dias bu baax mars ba léegi laa la wax soxna si lu gaa laa la nag mhm. lépp lu mës a xaw Sénégal mhm. te moyen de Barthélémy Dias la Barthélémy Dias moo fi taxaw en public daan ni man ak Ousmane Sonko li ma def bu ko état Sénégal xamee dañ ma tëj sama giir dund ci kanamu ndayam nag seetaloo ko ndayam ba loolu bànneel bu nee na ànd ak Ousmane Sonko am lu def loo xam ne bu ko état Sénégal xame dañ ko si tëj jur dundam ba noppi seedaloo ko ndey Ousmane Sonko Ousmane Sonko war naa jox xor xorma waajuru Ousmane Barthélémy Dias déglu naa rakki Barthélémy Dias mu wax magi Barthélémy Dias seen taaw bu jigéen wax wax ju o yaram Ousmane Sonko daan na añee kër Barthélémy Dias ak dafa reere ji dafa làqutoo ji kooku war nga am ngor sax war ma ay waajuram mais ak njaam nekk si yow ak ku reewande ak ku parce que dafa réew nit ku réew la en tant que premier ministre taxaw du wax wax ju ñaaw nii ku réew la ku xamadi la man dama koy wax dama assumé naa ko bu baax ku xamadi la ku réew la kenn yaru ko ku mu tudde ci ndayam nag man man de barke Ahmadou Bamba ku mu tudde nday kenn damay tudd ndayam tudd baayam bu mu fontoo nit ñi Ousmane Sonko na yërëm réew mi mars 2021 ba léegi lim teg réew mi dafa metti yàq na fi ay sey jàmbur fii li lii fi xew yàgg naa am na yu gën a ñaaw yi hmm. xale yooyu dem jàngeen xaw fu ñu jóge ay pour le Fuuta ñu de kottu moo tax fi ko gën a ñaaw dafa am ko ëpp si gëm am mars 2021 léegi xëy amaatugul Sénégal te wax na si biir waxam daal ni nee na état bi bu daal li mu def nañ ko hmm. kon ñii duñ àgg ak ñoom fii na wax lan la wax état na ko wax. parce que Ousmane kii nu ko sax Bass Diomaye Faye du ngaaga Bass Diomaye Faye nit la amul histoire bu ñaaw ci Sénégal Ousmane Sonko du ko teg moom la loolu moom la concerné moom mi fi àgg ci kaw jigéen ba cëg mu dara kàmm dem di laali jigéen julli tëbëg si jot dem di dàmpuluñu am image bu ñaaw saaga fii sëriñ xuloo fekk sénégalais yëpp Ousmane Sonko amul kenn nit ku baax comme traité wul lu ñaaw si réew mi bëggul nit ku baax bëggul gor bëggul nit am profil sax bu baax jaam bu bon a ngoog xamadeen bi ak reewandeen bi nag lenn mën a nekk gasa gasa gii mu wax yàgg na leen wax mu propos yooyu Ousmane Sonko indi ci réew mi ñu naan leen forme bi tax mu ko doon wax forme bi mu ko doon wax waxaat na ko ngir ay nan xam nag fu moo ko fu yóbbu défier na Bassirou Diomaye Faye défier état bépp nag te loolu maa naa ñàkk en tant que miss nga naan maa leen consulté mm-hmm. proposé leen Bassirou Diomaye Fay loolu maa na maa na ko bañ a xam na ni ab premier ministre faaw mu constaté ay ay ay ay ministre am mais maa leen proposé bu ñu koy loolu kàddu boobu Ousmane Sonko waru ko wax ay maa leen boot loolu loolu dafa ñaaw da yaram réew mi wax nit ñi lu leen amal njariñ jéem a boole Sénégalais ñu nekk benn xam ne Sénégalais yi amul amul amul ñii noo ñuul ñii noo xeet ñëpp ay Sénégalais lan ñëpp nga defee seen njaboot ñu far si yow ak ñu faral si yow képp ku si am jafe-jafe nga taxaw ñaawlu jafe-jafe yëpp ñu xam ne da taxaw taxawaayu nit ñu am jafe-jafe mais taxawaayu ah. gisoo responsabilité askan bi ci loxoom la nekk moo tax moo waxee ni moo waxee démb. déet bu doon looloo. lii tey la xew. chance nga dégg lu wax. dama ni moom sax bu fekkee ne moom bu ko attaqué woon ñi ko attaqué ak ak ak ñëpp daa war a daa war a gëm ñi sama njaboot lan leen yar waaye lii bu ko defati. mais Ousmane Sonko du ko def man di ko xam dama ne Ousmane amul lenn luy xew si Sénégal ba Sénégal nekkee ba Ousmane Sonko duggee si dem politique ba léegi du daa bu ñaaw ba xam si réew bi sax mu wax si amut du si wax du jaale kenn. Mhm. amul kilifa gu baax ku leen si réew mi sax mu jàll amul waaye sëñ nit ko bon noonu nag nekk noonu si réew mi nit ñi bëgg koo balaame rek bëgg koo oyofal noonu mu bëgg a nekk sa premier ministre ba nag boole koog yëruwut arrogant doo xam garaajam moo toj doo xam dafa dof doo xam day mànd di ko nëbb doo xam lan la parce que tudd na tudd na fi mànd baat li mu jaas moom li moo gën a bon màndi muy njaalo ak fen wasalaam Euh, jërëjëf sëriñ bi euh, dégg nañu kàddu yi ku nekk ak sa xalaat moom xalaatam la wax rek euh, keneen ku ñëwi tamit ak sa xalaat 77 810 90 90 bu ngeen duggee daal di participer ci émission bi allo salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. maaleykum